le de Abdoul Aziz Diop par exemple. non c'est c'est insignifiant Aziz déglu naa ko fii keroog émission. Mm-hmm. vraiment du ma nekk c'est dans une dynamique de tontuwante. mais quand même na na na delloo ci xelam. ñun respecté nañ ko jox nañ ko cër. Mm-hmm. vraiment man mii di wax ak yow ak samay xarit ñoo ko invité woon comme panéliste pas autre chose. comme panéliste mm-hmm. comme entre autres à l'université républicaine de 2011. bi nest pas voilà bi mu ñëwee aussi. Euh, président Macky Sall teg na ko fi mu ko teg xam nga li gën a bon ci àdduna mbir di am lu muy dessiné wu rek nga jël yenn position yi nit bëgguñ loolu. mais moom nee na nga am bi mën nga am non. on leur manque de respect. non non non ba ba non les propos de Farba loolu loolu c'est sa relation avec Faf avec Farba Ngom mais par extrapolation boo bëggee pointer le président. et le parti ça pose problème. Mm-hmm. donc bu ñu def exagération. Mm-hmm. Farba mën na juum dans l'approche c'est possible. mais c'est pas une raison mais c'est pas réponse nga mm-hmm. jël ñëpp xam nga def sa audio waxee xol man je pense que ëppoon na moom moom je pense que Aziz ëppoon na foofu. ah mais fi ngeen may euh, euh, Maysa. nit ñi est-ce que tollu leen bu mu métti rek. Mm-hmm. nit ñi commencé. wala ñàkk seen. mais dara métteegul. voilà voilà xam ne vous avez encore vos est euh, ce que à la fin doo leen coûter cher maanaam bi mu meree sa gënul woon pour yéen ngeen toog waxtaan ak moom delloo si ko à la raison. non je pense na ay am na ay dispositif interne. Mhm. pour waxtaan ak moom loolu loolu loolu dina am. mënuñu mhm. bàyyi nit ñi nii rek. voilà même tey bu ñu génnee le candidat je pense que le parti dina am lu mu développé. pour mhm. téyewaat ñëpp dans la famille. c'est-à-dire loolu mënul ñàkk mooy comme bi ñu dem élection locale on a eu de problèmes. mais après on s'est retrouvé donc nit ñi nañ am hauteur ànd ak dal te xam ne li ñuy xëccoo nii moomuñu ko. Mhm. yëfu askan wi la c'est-à-dire l'aspiration pour développer un pays. c'est vrai donc loolu aussi da nga ciy ànd ak immunité ak dal.